woon la taxul nga may yan song na barki yàlla this is dope man this is dope man hi guys Big Allen. Zesper j'espère que si jàmm bu bah. Nous sommes 800 000 abonnés sur la base. We are 800k followers on the base. Thank you so much. Merci beaucoup. jërë ngeen Yalan yàlla leen fay. on va faire une vidéo sur le clip de Wally Seck ak <laughs> this is dope, man. This is dope, man. Whoa, pop, pop, pop. Arelim gars gis naa gars yi niñ doon xaaree clip bi te clip bii nii man Fallou mënu ma cee bañ a wax léegi nag da xaar ma dem jëli samay rasta ñu waxtaanee ko <laughs> maa ngi nii du Wally Seck du Ama 2 Fallou 2 la nag xam nga clip bu ñaari rastaman boo ci wax foog nga def ay rasta sama gars balaa vidéo du commencé merci d'aimer la vidéo abonnez-vous bu leen fàtte yéen zéro respect sama promo code 21F la saa ba di nga am bonus 1 million léegi naa ko def si commentaire yi sama gars yi abonnez-vous abonnez-vous ngeen like vidéo bi dañoo war a un million d'abonnés loolu dafa war a mat sama gaa yi dafa war a mat sama gars yi dañ commencé ñu xool ñu seetaanandoo clip bi man lu ma xam ma wax leen ko lu ma xamul ma laaj leen ko ñu boole suñu doole ñu comprendre clip bi bi sœur ama deux Wally Seck ajul yow boo ma beddiwul xalaatuma la baay boo ma beddiwul xalaatuma la bàyyi maanaam moom bu ko ki bëgg a jëli moom bu ko beddiwul moom xalaatu ko bàyyi moom jox na bakkanam joxe na léppam ama làmmi somma tudd làmbaay yooyu loolu moom xaw ma ko moom xalaa ngeen wax ma ko ci commentaire yi rek làmbaay rek laa ci xam xaw ma ba xam làmbaay bi nekk bàmbaay la xaw ma ba làmbaay la mais loolu rek laa ci xam tooñ laa taxul nga may rëccooy salaawee saa nga mel sama njàmbaar ci yow mi la wekkooy maam gaañ la taxul nga ba tooñ la taxul nga rëccooy sàllaaw yenn saa yi nga mer parfois di nga nekk ak nit mu mer mais du du bàyyi bu meree après day dañuy jubawaat sama ci yow mi la parfois di nga nit mais kooku ki ngay génnal moom moo lay motiver mooy tax à chaque fois ngay am njàmbaarte ak sawarte you know what I'm saying ñu continuer dootuma wiiri wiiri jari ndaari lii moom moom laay jële dootuma yónni kenn ci sama waa mi mu ne dootuma wiiri wiiri jaari li ma moom laay dem jëli ama deuxième ful la man moom ba mun maa jëli li ma moom léegi moom mi ngi toog dama xaar ba léegi Fallou kañ ngay takk jabar waaw Fallou takkal jabar demal jël dinaa jël li ma moom ama deux sa way bii dina tax ma jël li ma moom ñu xool dugg si Wally Seck oh! Wally mais est-ce que dégg ngeen dugg si bi dootuma wiiri wiiri eh. jaari ndaal lii moom Wally Seck nee moom dootuma wiiri wiiri jaari ndaal li moom lay jëli waaye moom jëli na lim moom ba pare xanaa ci clip bi lay wax dégg ngeen Wally ni mu fekk see Amadeus ci ci style de musique am ba pare way si lu neex mais lii xeere na waaye barki alxuraan baramaad waaw fajar fekk nga teen jaayoo bale kër gi raxas say ndaf nekki ngay waajal balaa maa jóg fajar fekk nga dem jaay yooyu bale kër gi raxas say nap nekkati boobu doom ngay waajal damn damn damn that's good that's good that's good dunda mata ñaanooy ndaxte gaynde dafa koy jur attends dunda mata ñaanooy jur lu xaw ma lu wax foofu de dimbali leen ma ci loolu moo xaw ma mais su ma xamul dama leen laaj ngeen ma ko di continuer ndax finaa loo loo ma ñaan dinaa la may ndax finaa loo ma xeeboo li ma lay jox lépp loo ma laaj dinaa la ko jox ko maam loolu moom moom joxe na léppam daal ko en fait joxe na léppam dootuma def leen lu lay metti sama ndaw si ndax sama ndaw lay nga doon leeral sama yoon dootuma def leen lu lay metti sama ndaw si ndax sama yoon nga doon leeral sama ndawle dootuma nangu mi ndef di sama digg nangu kenn di dugg si diggante maam dootul nangu kenn di dugg si diggante ak moom ndax yàlla moo def loolu gaañ laa taxul nga ba eh. gaañ la taxul nga ba ama deux fan la taxaw nii mais attends lii ni lii seetu la wala. ñoom seetu lañ teg ci kii bi wala mais ñii mën nañ montage de seetu lañ teg après caméra bi taxaw ci suuf wala man comprendre dur ma sax. that's good mais yàgg naa gis si ay clip mais maa ngi lan lan la war a doon. tooñ laa taxul dañuy seen song bi neex man mi maa koy jëli dootuma wiiri moom lay leen li ngeen moom li ngeen ko bala balaa balaa balaa ñu ngay këf si yéen <laughs> te bu leen yónni kenn boo leen dem di jëli su may jël li moom du yàgg wax naa leen ko fii damay jël li moom moom léegi te du yàgg ah, te du ma yónni kenn ni waaleeg aba deux laay dem toon naa tax nga may rëctooy sa say nga ma sama ñambaar ci yow mi la wékkooy oh waale waale c'est méchant <laughs> lii neex na waay sama gars yi leen moom xam naa xaw ku jëliwul lim moom waaye moom maa ngi jëli limam moom moom maa ngi dem de waaye damay xaar tuuti xaalis biir rek